ci suba ak léegi rek ñoo ngi ci gàmmu gi ba léegi fii ci cees ñu ñëw kër Serigne euh, mbayloo Lo Serigne Ababacar Lo fekk fi njaboot gi di ñaanal baax ki nga xam ne moo fi toog jotaayub Serigne Ababacar Lo di Serigne Amdi Moustapha Lo di ko ñaan suñu borom yàggal ko lool te wéral ko euh, ñu toog ak Serigne Cheikh moom Serigne Makhtar Lo moom Serigne Mame Mbaye Lo euh, xàmmee ngeen ko bu baax ci waxtaan wi am solo yoo xam ne mi ngi koy def ci yoon wi rawatina yoonu maam Cheikh Ibrahima Fall wi Euh, ci euh, ay leeral yoo xam ne ay xamal xamale yoo xam ne des na ci joggi ba mën a xam ni ngay dundee yoon wi euh, tey jii nag ñu ñëw fi ngir ci bisu gàmm gi di ko ziar nag bu baax di ko laaj rek tuuti ci ak Baye Fall na lan mooy ak Baye Fall ndax mel na ne ak Baye Fall jot na sëkk fi ne ngir nit ñi xam lan mooy ak Baye Fall donte ne xam ko sax yombul waaye luñ ci mën a barkeeloo rek ci xam ko. yéen bokki jullit yi yéen bokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu fii ci kër Cheikh Ababacar Lo Euh, ci keppaaru sëñ Maxtaar Lo nu nekkal ko fi ay jëwrinam noo ngi nuyu bokk taalibe bi yëpp di rafetlu jotaay bi di ñaan ci barkeb sëñ Touba doole maam Cheikh Fall Baay Muridiin barkeb Cheikh Babacar Lo sunu borom defal nu tawféex ba lii nu ñuy laaj ñuy wax ci sunu kem kàttan nga xam naa dana jafe sax ci xam lan mooy Baay Faal waaye ñu wax ci rek fii sunu dégg toll. noo sant yàlla baax subhaanahu wa taala ci sayyidina muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam di sant Cheikh Ahmadul di gërëm maam Cheikh Fall di wax jërëjëti jërëjëfati Cheikh Ababacar Lo ndax lii lépp nag mooma di ñaan Cheikh Mamadou Muntaxa yàlla yàggal ko fi lool lool lool moom njabootu sëñ Tuubaa gépp noonu lañ koy ñaanale sëñ Amdi Fall Modou Mbenda xalifa maam Cheikh Fall Babil Mouridine yàlla bàyyi ko fi mu yàgg fi lool te wér ak njabootu maam Cheikh Fall gépp di ko ñaanal sëñ Abdou Moussa Lo xalifa sëñ Ababacar Lo yàlla bàyyi fi yàggal ko fi nu yàgg ci ginaawam ba yim am ci liggéeyal maamam nu ànd ko lu yàgg lool bi àqi laa ilaha illallah muhammad rasulullah xam na euh, laaj nga ma lu lu lu lu jara laaj ak lu jafee euh, waxtaane muy lan mooy ak Baye Fall euh, ak Baye Fall moom lu mat a lu mat a leeral lu mat a xam la ndax Baye Fall moom buñ nee mooy koo xamee ni du julli du woor euh, dañ koy bëgg a dëkkal foo xamee ni sax dëkku fa te Baye Fall ba ñu la julli ba ñu la woor waaye dafa gis lu ko dàqal julli dàqal ko woor euh, te loola bu ñu demee ci téere bu tedd bii di alxuraan euh, dañ ko fay fekk ndax boo demee ca biir alxuraan day wax ni fasalu ahla zikri in kuntum laa ta'lamuun na ngeen laaj way xam yi ndéem xamu leen sëñ Tuubaa nag bañ ko laajee lan mooy sa mbir dañu fa kullu man sa'alanii falil jawaab qabla walaa tujaddilu ahlal kitaab lii sama mbir daal ku ko bëgg a xam dëgg-dëgg mooy li jëkk walaa tujaddilu ahlal kitaab loolu nag mooy wala sikuraay akbar wallaahu ya'lamu maa tasna'uun waaw baat boobu nga xamee ni moo ëpp doole lépp moom la maam si rafal jël def ko nag muy muy muy muy ak jaamu yàllaam def ko it muy ab liggéeyam muy inna salata tanha anil baadaai wal munkar wala sikolaay akbaru yàlla mo wax ni julli kat baxna lol day fal ay ñaawteef ak yuñ sib waaye wala sikolaay lam go xasam la da wax ni giñ naa ni tudd sama tur wax la ilaha illallah muhammad rasulullah mo gëna mag lépp luñ luñ may luñ may jamo rek wax bat bo moo ci gënal fi mu toll bo jëloon aduna ak li ci biram lépp jël suuf ci ak asamaan si ak li ci digganti diggante rabbu samaawaati wal waa wa maa baynahumaa lépp boo jëloon lépp teg ko ci balance baatu laa ilaaha moo koy wat baat boobu nag yàlla da ko farale euh, moo tax ak Baay Faal digg dëgg daal danaa yow faral di wax ci samay wax ni juróomi yi ponk la islaam xawaay islaam juróom la mooy gëm yàlla gëm dogalam yi gëm téeram yi gëm yonent bi sallallahu alayhi gëm gëm euh, malaayka yi gëm ëllëg gëm tey gëm ëllëg loolu mooy mooy mooy imaan waaye islaam nag liimaan lislaam lextaan islaam nag mooy mooy joxe sa bopp jébbalu jébbalu nag deful yàlla diglewul ah kay balaa man aslama wajhu lillaahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbihi wala xawfun alayhim wala hum yaxsunun yàlla moo wax ni danaa danaa wuyu balaa man aslam waj képp koo xam ne daa joxe boppam lillaahi kii joxe boppam joxewu ko ngir ngir eh, neen de da koy jox li li waj day fekk ku àgg ci yàlla di àggale ci yàlla mu jox ko boppam lillaahi mu ni kon dana wuyu képp ku joxe boppam lillaahi loolu nag woowu muhsinun lu rafet la fa loo ajuroo indi rabbi yi wala xawfun alayhim wala hum yahzanun ña def loola joxe seen bopp muy muy muy muy aslim muy islaam ndax baatu islaam ma ngi génn ci aslim taslim maam jébu leen mucc ku joxe sa bopp nag yàlla nee na ñoo ñoon laa laa xawfun alayhim wala hum du ñu am lu ñuy tiit tey ak ëllëg du ñu am lu ñuy ragal kon ak Baay Faal xabaay islaam juróom la gëm yàlla gëm dogal yi gëm téere yi gëm malaayka yi gëm bis ba waaye boo gëmee ba noppi nag wa yuqimuna salaata wa yóotu sakata wa samu ramadaan wa ajal bayt liman istata ngay julli waxtu juróom yi woor weeru koor dem makka boo ko mënee di génne asaka boo ko sa bu ko sa alal matee loolu mooy loolu mooy xawaay islaam juróom yooyu bàyyi faa ne xam nañ ko de waaye nag yooyu it li muy rëy rëy yàlla daa waxaat ci sóoru safa safi ma dan yetan sóoru safi wàccul makka madina madinatu munawwara a wàcc boo demee si sóoru safi ma dan yetan nga ciy fekk du makka yetan يلا وحني يا أيها الذين آمنوا على أحد ألا تجار تنجيكم من عذاب من ألي من بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم سالكم خير لكم إن كنتم تعلمون لولا صحابي يعودون جلي دوار ويل دا وخات نيوم نيولين مون لين لو غنا غاو كوميرس بو خامي مو غنا غاو تي يين مون موسول تي مبوغام يالا مو ميتي لولو موي لان مو بالله دا نين ورسوله تي گم watu jaahiduuna fi sabilillahi ngeen di jaat yoon yàlla bi amwaalikum wa anfusikum ci joxe seen alal ak seen bakkan saalikum xayrun lakum loolu gën ci yéen kër in kuntum taalamoon dem xam ngeen ko lam fa fekk lépp da ko gën kon Baay Faal dëgg dëgg juróom yi ma ni moom la mooy da ngay gëm yàlla bu wér ak yonent bi bëgg yàlla bu wér ak yonent bi di maanaam wóolu yàlla bu wér ak yonent bi di tudd yàlla bu wér ak yonent bi di liggéeyal yàlla bu wér ak yonent bi juróom yi mooy ak mooy mooy ak juróom yooyu mooy ak Baay Faal da yàlla bu wér ak yonent bi bëgg yàlla bu wér ak yonent bi wóolu yàlla bu wér ak yonent bi di tudd yàlla bu wér ak yonent bi di liggéeyal yàlla bu wér ak yonent bi juróom yi mooy ak Baay Faal li Baay Faal yi ci léegi dañu tënku bëgg yàlla nag c'est la danoo jàngaloon wax ni lépp looy bëgg su yàggee loolaa moom kon na bëgg yàlla looy bëgg rek bu yàggee loola moom la kon nangeen ngeen bëgg yàlla ndax yàlla moom leen Baye Fall mooy ki xam ne daa bëgg yàlla yàllaa ko gën a léppam ala ma wax ni su ngeen bëggee ma sopp leen da ngeen topp yonte bi man yuti rasoola faqad ata Allah ku topp yonte bi topp nga yàlla kon ku bëgg yàlla dangay topp yonte bi sallallahu alayhi boo toppee yàlla ak yonte bi ba noppi nag nag nga gëm yàlla nag gëm nag mooy jiitu gëm yàlla dëgg-dëgg gëm yàlla nag mooy yaa ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqaatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun yàlla nee na yéen ñi ma gëm da ngeen may ragal dëgg-dëgg ragal yàlla ñu ne ko mooy ran mu ni doo doo tooñ sa borom doo tooñ sa borom Baye Fall du dooñ boromam du dooñ boromam maam Baye Fall bañ ko laaj sëñ Modou Fall lan mooy ak Baye Fall mooy mooy ki nga xamee ni eh, day def ndigal te bàyyi ay tere li li li li yàlla digle lépp mënu ko mënu mënu ko jëf ndax yalla ligue lepp yalla euh, say la wu diis woo xamee ni ko attan bëriwul waaye waaye nag soo mën na yenu say wi fataqala taqolaa mastatahtum nga yenu ci nak ci say nga rocc ak mat di lang ak mom bàyyi fan nak say yan yan dem trop ci matt gëm ci rocci mo moo gën diis ci mat yi gën ci reuy moy bëgg yalla bu wër gëm yalla bu wër wóolu yalla bu wër di tud yalla bu wër ak yonente bi di ligël yalla bu wër kon bu gëm yàlla amee yaa ayyuhal lazina aamanu ittaqullaaha haqqa tuqaatihi wa laa tamuutunna illaa wa antum muslimuun doo tooñ sa borom doo tooñ sa morom loolu muy dëgg-dëgg ragal yàlla doo tooñ sa borom doo tooñ sa morom wala na illaa wa antum muslimuun te doo bu leen fàttu mukk te jébbalu leen doon leen doon doon leen ay julit joxe joxe joxe bu leen fàttu joxewu leen seen bopp lillaahi kon loolu mooy gëm yàlla wóolu yàlla nag mooy li nga yor lépp yàlla dana jëlaat nga joxe ko attan koo joxe ngir yàlla maam lamb damay wax ni Baye Fall boo koy natt ci nit ki ak Baye Fallam ku la gën a gëm ëllëg rek moo la gën di Baye Fall Baye Fall mooy ki nga xam ne ba muy jaayanteeg eh, moom maam Cheikh ba muy jaayante Sëñ Tuubaa da ko wax ne ko wërloo maa yow fii ci àdduna eh, mbaar mu ko soxlawu ma lu toll li dee ci we soo soxlawu ma ngir gëm ëllëgëm Baye Fall mooy ki xam ne li mu am lépp attan na koo ñàkk tey jii ngir yàlla doo la di Baye Fall sëñ Modou Aminta Fall di radiyallahu anhu yàlla yàlla yokk leeram bi mu fi nekkee gis nañ ni chaque année deux cent million lay takk di ko jox di ko joxe addiya te bu ko sëñ bi liggéey la mu dem liggéey liggéeyi daawul dajale adduna lu mu mas a am rek yàlla la ko jox deux cent millions la daa jox par année bi muy dem cent soixante-dix-huit millions la fi bàyyi ay doomam takk ko te ko joxoy sëñ Cheikh waa jëm mu jébb ko sëñ Saliou sëñ Saliou danaa wax sa laaw moos de mboolem ñi sëñ Tuubaa defar seen maam yéen rek a fi indi addiya ndax addiya ak siyaar daa bokkul addiya fa mu fa muy bàyyi ko dafay dafay wàññi dara fa muy jëm mu doon faa jëriñ siyaar nag man nga am fukki million jël benn million bi siyaar rek sub sëriñ loola ab siyaar la ndax la lam fa bàyyi daa ëpp fuuf la nga yóbbu sëñ Modou nag dina sëñ Modou Aminta loolu la ñu jàngal miraas sa bopp li nga am lépp nga nga jox ko ngir yàlla kooku nag mooy ki yóoru yàlla kooku mooy kooku nag mooy ki yàlla kooku di bay Faal te it Alxuraan moo na ko jàngal kat lan tanaalul birra hattaa tunfiqu mimmaa tuhibbuun du ngeen am mukk li ngeen gën a bëgg te ñàkku leen li ngeen gën a bëgg nit ki lim gën a bëgg lim gën a bëgg koy may nit nag li mu gën a bëgg ci boppam mooy alalam ak bakkanam ak ak njabootam maam Cheikh Ibra nag foofu la ñu féete woon sëñ Touba maam tàggat si ak njabootam it lu ñu am jox sëñ Touba lu ñu lu ñu jur jox sëñ Touba lu ñu man liggéeyal ko sëñ tubaa loolu mooy wóolu yàlla baykat bi kat su su bàq bi tooyee buy dem ci àll ba di di faraasu wóolu yàlla tax ma koy def. wala muy fab kembam di ko di ci bàq bi fab lu ma nanga mi bëri koy kemb soolu ko ci suuf wóolu gum wóolu ni yàlla dana ko saxal moo tax mu di ko def te yàlla moo wax ni masal la siun yoon fa oon a amwaalum fi sabilillahi kamasali abbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbilatin mihata batin wallahu yudaafi liman yasaa wallahu waasiun alimun ñi ñàkk seen alal ci yoonu ci ci yoonu yàlla mu loolu di Baay Faal Baay Faal yu joxu joxu ñu de ñi fi gën a nekkal yàlla la ñuy jox mu mu ñi ñàkk seen alal ci yoonu yàlla kamasali abbatin nee na day mel ne benn pepp an batat boo xam ne dañu ko def ci bàq zap sanabil mu juróom-ñaari gub fi kul sun béetin gubu ca nekk mi ata abbatin téeméeri pepp nekk ci yàlla nee noonu laa koy fayee ñu ne ko lu tax mu ne wallaahu yu daahi fi la man yasaaw wallaahu waasiun alimun te man man yàlla may fulandil lu ma neex te maa daj fépp xam lépp ni fépp bàyyi faale lépp lu ñuy lu ñuy def ci yàlla lañ ko teg lu ñuy joxe yàlla tax ñu koy def yàllaa tax ñuy liggéey kon loolu mooy wóolu yàlla liggéey liggéeyal yàlla nag weesul mooy allazina amanu wa haajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim ahsanu daraja indallah wa ulaikumul faizun ci sóor tawba lazina amanu bu ñu la laaj lan mooy Baay Faal demal ci sóor tawba jëlal aaya boobu neen lii moo dig Baay Faal lazina amanu gaa yi gëm yàlla wa haajaru te gàddaay bàyyi lu bon wa jahadu fi sabilillahi ñu jaat ci yoon yàlla bi amwaalihim wa anfusihim ci joxe seen alal ak seen doole bu ñu laajee addiyee ñoo ci man bu sëñ bi bale Tuubaa yi noo koy bale suñuy buddi ëkk yi xel koom noo koy buddi li gën a métti ci yoon yi Baay Faal yi koy def loolu loolu mooy bi amwaalihim wa anfusihim joxe sa alal ak sa bakkan yàlla nee na nag ahsanu daraja indallaa ñooñu ñoo gën a rëy daraja ci yàlla te wa ulaayka humul faa'izuuna ñooy ñooy way taxe balaa kenn tabb ajjal ñooñu dugg ba noppi kon loolu mooy liggéeyal yàlla tudd yàlla nag mooy laa ilaha illallah moom rasulullah baat boobu yàlla ñëpp la ko warlul muy farata ci bépp jullit loo ko gën a wax di gën a jege sa borom di gën a sori sawara di di gën a di gën a baax ndax moo tax ñu tudd ko kalimatu taqwa loo ko gën a wax rek di gën a ragal yàlla moom baat bi laa ilaha illallah muhammad rasulullah Cheikh Ibra maam Cheikh nag moom la def muy alalam ba bàyyi baat bi sax fu ñu ko mën a yëkkatee su dëggoo ñu ne xanaa loolu bàyyi fàllyee fa ama dawama sikuru fa wa akbaru min kulli maakaana mu yuksaru sëñ Tuubaa nee na fa ama dawama sikuru ndax saal baatu laa ilaaha illallaah fa wa akbaru moo gën a màgg lépp min kon min kulli maakaana murid yuksaru ci lépp lu murid bi bari murid mooy kenn ma dem ci worom ki bëgg a dem ci yàlla warawaay wu mu jël wudul wax laa ilaaha illallaah wax laa ilaaha illallaah gën a gaaw sëñ Moodu Mindi Fall mu baax ma radiyallaahu anhu daa wax ni baat bi de barmoon la bu ñu tàggat ba mu min benn benn benn barab benn gétt ñu bàyyi ko mu mu mu mu wuddu mu mu wut dem ci àll ba barmoon la mooy naar goru ndaw neena mo dajé mom ci manding nak tawar ko to bo mané gawar mu yobul ci yalla so mënul gawar mu bayyi lefi té la wat ci yalla ndam mom ci yalla lay xey ci lay delu mom mom bat lay lay la da di ku ne bëgg yobbu ci yalla to la wax te do la wax la bat bi soko ñëmé ne ko dang may nax mom bat lay lay la li annahu bidayatul wilaya wa tarkuhu ni'ayatul khawaya bat bi soko tambalé wax rek bokku ci gor yalla li annahu bidayatul wilaya moy tambali wilaya wa tarkuhu bañ ko waxit nihaayatul xawaay mooy li gën a ci bew wa man adama sikuru mustahdira farabihun wala yu laaxi kalara baat boobu nee nag wa man adama sikuru ku xasaal mustahdira te teewlu ko farabihun da ngay tonaw da ngay bénéfice u wala yu laaxi kalara te doo ci benn ngaañ loolu nag lu moom la bàyyi faal jël mooy seen arme bu ñu tëddee الذين يشكرون الله خياما وخوفا وعلى جنوبهم ويتفكرون بني تدي مام لا نيوخ بني ييو مام لا نيوخ بني روخ مام لا نيوخ بني بني وخول دارا صاح سين خول يالا لا تودو ndax الذين يشكرون الله خياما وخوفا وعلى جنوبهم ويتفكرون موي نيغا خامل نيي خام سين بروم لول كو مو ريك باي فال تي لي لا نني نك اي رومي سخنا لا نو دونون كو تي سنج بي ووتيغول سونو مام بيلو بيمي توب شيبرا حافظ القران لا تشير لما خدم ديواليو du ñu ay jaayil de waaye bi ñu gisee Cheikh Rafal dañoo gis lu dàq lépp lu lu yoroon mu ngoy ci Cheikh Rafal te rëcciwu ko keroog ba mu gisee moom da ko wax ni ko sëñ Mbay mu ne ko Faal mu ne ko sëñ jébbal ko loo ci làq mu ne ko wilaayatul yaddoom mu ne ko defal naa ko wilaayatul yaddoom nag mooy lii ngeen fi gis sëñ Mbay loo kat ba mu demee ak léegi téeméeri at la ak ñeenti at ndax 1919 la la fatu waaye tey jii la mbiram gën a yaatu tey la barkeem gën a yokku ñun ñii. am ñoom ñii am na ci ñoo xam ne xamuñu suñuy bàyyi waxuma suñu maam suñu taari bi am na ci xam xamuñu moom mii de may sëriñ waaye xamul kuy sama bàyyi xamul kuy sama maam ak ñu demee na moom kon loola mooy wilaayatu ya doom mooy néewu ko danaa la ko defal dana ko defal naa la ko ba mu demee mag ñi ko wax ni ko ngay wax ne sëriñ bi ba wax ji bari dalaa wax ne loo laxa ci njébbal gi ko tontu mu ma ne ko dama ne ko wilaayatu ya doom mun lu ma wax mu ni dama mu ni ma dani ma defal naa la ko ma ne kon abbiwu ko lu man la ndax moom sëñ Tuubaa la jëmoon ba mu gisee leeru sëñ Tuubaa gi sëñ Tuubaa la doon seeti waaye bi mu gisee Cheikh Ibra la xam ne sëñ Tuubaa Cheikh Ibra dañu ñaar loolu lé adduna nga koy door a xam waaye boo ko sëñ Mbay di xam du tey ba mu xamee ne sëñ Tuubaa Cheikh Ibra dañu ñaar du tey ndax sëñ Tuubaa la doon wuti waaye bi mu gisee Cheikh Ibra rek la nañ katiiw xam ni Cheikh Ibra mooy sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa Cheikh Ibra kon xam naa eh, waxtaan bu ñu ko toppee eh, da da day saaraan rek waaye waaye ñun daal ay Baay Faal la ñuy doon te duñ doon ay Baay Faal waaw julli baax na lool maam Cheikh daa waxoon ne ah, doom julli baax na lool waaye yër sa bàmmeel la nee na yër sa bàmmeel nag loo ci dafa gën a wóor boo defee takbirul ihram ne allahu akbar tarifaate rukkoo tarifaate teg ci saa rukkoo nee yër sa bàmmeel la yër sa bàmmeel nag loo ci dafa gën a wóor daane ko ah, doom kuy julli fooy jublu ñu ne ko penku mu ne boo ko mooyee nag mu ne ko ñu ne ko du baax defal mu ne ah julli gën a jafe waaw julli gën a jëfe jox sañ kuy liggéey yàlla na fooy jublu ñu ne ko foo jublu baax na mu ne ah kon jox yàlla gën a wóor walilahi al masriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa moom boo koy jox wéy boo tànn la ñu nangu kon moom ba mu bàyyee julli daa daa féetoo jox yàlla yàlla yàlla nangul <laughs> ilaana malikul haqqul mubin Cheikh Ibra yow ku réer yaa ko gindee Jazboul Mouride au service de Mame Cheikh Ibrahima Fall